فاز الذين حافظوا على سيام Touba Bois ministère yi soxna Amy nekk fii ci Touba Ndindi ay porte lu ci mel ni porte saal wala ay porte sàmbur dañuy liggéeyee xeeti bant yi ñoree réew lu ci mel ni dimb wala wel ci wàllu yi jóge bitim réew na falake am na jibuti am na yettani saa Touba Bois ministère yi soxna Amy nekk fii ci Touba Ndindi gaaw leen jokkoog gérant bii di Serigne Modou Samb 78 380 99 67 78 moo du jour kon nag mbokk yi di leen baax rek di leen ñaanal koru jàmm ñu dikkaat ak yéen ci li nga xam ne mooy guddi juróom-ñaareel ga Sëriñ Sooy Mbàkke da wax ni ku ci julli juróom-benn rakka rakka bu ci nekk fatiha ak xul yaa kaafiruun ak xul huwallahu ahad te mooy sooratul ixlaas lu ci nekk juróom-ñaari yoon nga koy tari lu ci nekk juróom-ñaari yoon nga koy tari aaya bu ci nekk dees na la ca bindal aw yiw ci araf bu nekk ba keroog saari di jeex ak limb ni mu toll dana mel ni itam ku saraxe junni dinaar te lu mu ñaan yàlla ci waxtu bala faa jóge suñ borom dina ko ko may kon moom it julli la gu gàtt gu am njariñ lool gu mat a bàyyi xel gu mat a topp dañu wax ni kat ëllëg yamal xam geen jëm moom képp ku ko xam doo ko jëfal dara ba xeeb ko doo ko jëfal dara ba naw ko loo ko jëfal da koy xeeb kon nag julli li muy gàtt gàtt lu muy nuru nuru lu tuuti nañ ko fonk te respecté ko te bañ koo sàggane ndax ci weer wi rek lañ ko man a amee kon jërë ngeen jëf